Bien évidemment euh, lié donc à la déclaration de patrimoine euh, du chef de de patrimoine Diomaye cœur ouvert ñu question bi nga soulevé. Oui euh, Diomaye cœur ouvert parce que mm-hmm. en fin de compte mm-hmm. eh ben euh, doon xaar mm-hmm. euh, te constitution digal ko mm-hmm. eh c'était que mu déclaration de patrimoine bi nga xam ne Euh, moom la bépp candidat euh, euh, élection présidentielle di def. dama eh déclaration boobu président bi nga xam ne ki nga xam ne moom la ñu fal daf ko dañ ko war a publier dans un délai il de 90 jours. Mhm. c'est vrai que la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours. semaine mhm. maa ngi doon ñaxtu. le fait que pour que ñu euh, pour que Bassirou Diomaye mhm. euh, publier sa déclaration de patrimoine. laajte nga ko fi ba tey ci naa ko fi ba oui c'est-à-dire que euh, mhm. c'est pour ça que j'essaie de m'expliquer un peu. Mhm. parce que am na côté boo xam ne xëy na peut-être foofu sax euh, xaw naa fa jum parce que moment bi may euh, wax loolu. Mhm. di ko ñaxtu. pour mu génne sa déclaration de patrimoine pour ñu publier ko déjà mu déposer ko pour ñu publier ko. boobu effectivement. on se rend bien compte que ni depuis le 2 juillet. Mm -hmm. euh, le Bassirou Diomaye Faye déposé euh, sa déclaration de, euh, de sa déclaration de patrimoine mm donc donc moom respecté na. Euh, délai euh, de rigueur yi nga xam ne. Mhm. moom la ko yoon teg ci ndoddam. Mhm. donc donc xañ na peut-être dañ dañ ci waxul woon. Euh, mais conseil constitutionnel na déclaration de patrimoine u Bassirou Diomaye le 2 juillet donc bon maintenant après la question c'est de savoir mhm. euh, pourquoi pendant toute cette période le 2 mhm. euh, et, le 2 juillet et le 29 il me semble aujourd'hui mhm. la ñu tey et eh ben eh donc donc kon euh, mooy lan moo taxoon xëy na peut-être conseil constitutionnel téye woon Euh, déclaration bi ba publier wu ko peut-être que c'était euh, pour des raisons techniques ou dafa doon vérifier j'en sais rien euh, la véracité justement de cette déclaration peut-être loolu moo tax mu jël temps pour dem vérifier xëy na xaw ma parce que quand même entre le deux ça en fait presque un mois pratiquement bi conseil constitutionnel téye la déclaration officielle de patrimoine bi nga xam ne la waroon publier Euh, lu tax lu tax lu tax lu mu téye woon ko nag xëy na man mën nañu rafet jot nii xëy na moment boobu da doon seet wala ñu yéex kese ci liggéey bi wala wax dañ doon vérifier ndax li li mu wax yëpp comme déclaration lu am la. et que euh, tegu na ci yoon. peut-être que c'est à cause de ça mais en tout cas yu mel nii bon peut-être que dañu ci war a communiquer parce que aussi pour man une déclaration qui est déjà faite tout ce qui est conseil constitutionnel war a rapidement vérifier euh, pour euh, sénégalais bañ di inquiéter ou alors sax qu'il nous explique lan moo tax mu jël autant de temps presque un mois après le dépôt parce que à un ñu ngi doon xalaat ni. Mm-hmm. xëy na. Bassirou Diomaye Faye moo yéex a déposé affaire bi pour x raison te yooyu day indi euh, ay njort yoo xam ne xëy na peut-être mun na bañ a rafet comme mm-hmm. man personnellement j'y ai pensé parce que j'étais persuadé j'étais persuadé j'étais convaincu que ni mm-hmm. daf ko waroon joxe que délai bi passé na et que daf ndekete moom déposé na ko depuis le 2 te le 2 avril euh, euh, ou le 3 le le le le def le prêter serment. Mhm. donc le 3 boobu respecté na ko le 3 avril donc entre 3 avril et 2 juillet. pratiquement euh, nekk na ci délai bi. Ah bi nga xam ne moom la déposé affaire alors que ñun mënuñu ko woon xam parce que mhm. on ne sait pas ce qui se passe des fois. bu doon yenn dëkk yi da ngay cliquer fenn rek. nga gis mbir mi quoi mais fii gars yi y a trop de non-dits et de cachotterie. ça hmm? euh, toujours maanaam les lenteurs administratives bàyyiwul sax président la. voilà c'est tout quoi mais bon peut-être aussi conséquence comme li ma wax rek dafa dafa dafa jël euh, dafa jël temps pour vérifier ndax li Bassirou Diomaye Faye déclaré yëpp lu am la et cetera xam nga euh, valeurs yi mu wax. pour mun ko évaluer et cetera pour que effectivement li nga xam ne moo ëpp solo ci déclaration de patrimoine boobu mooy à la fin. de du mandat de Bassirou Diomaye Faye ñu ñu mu mën a déposer waat beneen déclaration euh, avant muy génn euh, comme ça ñu xam exactement ci diggante bi bi muy nekk président ak bi muy génn ñaatal la gagné est-ce que xel nangu na li mu jotaat parce que patrimoine am dina yokk euh, dans quatre ans et demi dina dina yokku dina mm-hmm. léegi comme day yokku nag léegi bi muy buy génn buy mandaam di jeex pour du premier coup dafa war a wanewaat patrimoine am pour ñu xam ndax xel yi mën a dal ni un président euh, justement enrichirewul dans euh, sa fonction présidentielle. mais xel dal na xanaa ci lu jot a génn déclaration de patrimoine bi li ñu dégg y yi wala chiffre yi ñu avancé wala. de 5 millions comme salaire moi je pense que c'est xel dal na xel dal na parce que pour un c'est-à-dire xel xel dal na parce que parce que xel dal na ci benn côté parce que président de la République na nañu léegi ñaata lay gagné voilà euh, kenn xamu ko woon. kenn xamu on pensait que c'était plus mais mais li ñu dégg. non moi je pensais rien du tout. Ah moi je moi je pensais que c'était plus hein. non man xamuma xam nga man man xamuma euh, parce que. Pate xam nga ce que ce qu'on se disait mooy. du moins que am na caisse noire rek. man personnellement c'est-à-dire salaire bi mais ba tey salaire salaire la ñu wax rek. c'est vrai du moins que. par rapport au directeur au DG. j'essaie de m'expliquer euh, man je crois que ni mhm. euh, euh, boo gisee daal ma ko woon xalaat c'est parce que c'est la première fois quand même mhm. moo tax foofu sax xëy na bu la neexee ñu ne xel dal na fa mooy bi mooy première fois dans mhm. l'histoire politique du Sénégal où ñu toog ñu ne président de la République déclaration de patrimoine am ngi nii gis nga ci Macky saal ñun mësuñu ko gis très honnêtement bi muy génn aussi gisuñu ko ci Ablaye Wade mësuñu ko gis bi muy génn gisuñu ko yaa ngi dégg mhm. voilà je crois que si Abdou Diouf c'était pareil aussi mosuñu gis déclaration patrimoine donc moi je dis bingo euh, pour ce coup mais bingo à moitié mhm. pourquoi à parce que li finalité bi moo ëpp importance début bi c'est bien mhm. mais ça sera encore euh, beaucoup mieux ou même très bien ou même excellent bu fekkee ni euh, bés buy demee bay bay jeexal mandat am mu defaat déclaration ñu xool ci diggante bi ñaata la fi gagné parce que loolu moo am solo ci fin bi début bi baax na mais li gën a am solo mooy à la fin ñu xam exactement moom ci diggante bi li mu déclaré woon ak ci fin bi li muy déclaré ñu méngale ko xool ci diggante bi ñaata la fi gagné est-ce que xel nangu na ko en tant que président de la République par rapport à son salaire wala waaw wala déet voilà et puis aussi nañu tàmm nañu tàmm di vérifier bon évidemment ah, c'est le gestionnaire de patrimoine qui parle mm-hmm. il faudrait que ñuy ñuy xool aussi Euh, cousin yeeg jabar yi lan la ñu yor comme comme comme patrimoine. ah bon mais moom lañ concerné de déclaration de patrimoine moom lañ ko exiger ou bien ñeneen ñi dañ leen war a xool forcément. non c'est que da nga dégg li mu wax xam fa ah? mooy xam nga au Sénégal. Mhm. y a beaucoup de prête-noms. Mhm. Fatou. wala boog. Ah, non am na fi wala amu fi. waaw oh, dégg nañ fi ba taay ay prêts non waaw voilà donc nañu seet rek quoi ce n'est pas parce pas confiance moi je pense que c'est un monsieur intègre. oui man quoi mais. Hum? il il accepte di waxee di divulguer li nga xamante mooy salaire présidente te kenn mësu ko dégg d'ailleurs vous le reconnaissez. waaw adduna waaw adduna mooy dox. adduna mooy dox pression yi gën a am. et que et nit ñi di gën di. Euh, euh, def attention mais Aliou Sow la kii parce que bu fekkee gis nañ ay autorités yu mu dirigé moom ci boppam ñooñu di ko ëppale ay salaire. Euh, aussi xam nga je je vais vous dire un truc. Mm-hmm. Emmanuel Macron gagne un peu plus de treize mille euros. treize mille un peu moins de euh, autour de huit huit huit et demi millions. Mm-hmm. neuf mm millions. Ah Euh, pour une république qui s'appelle un pays qui s'appelle la France demal nga xool budget France euh, ak économie France fi mu toll ce monsieur gagne moins de quinze mille euros moins de dix millions Sénégal le président gagne autour de à peu près cinq millions mais ñooñu est-ce que xam nañ tamit euh, autorités yi fa nekk comme les DG ministre lan la ñuy percevoir aussi. xam am non dama ne ñoom am na ay les les DG mais 10 000 euros c'est rien du tout pour gagner 10 000 euros en France. les cadres là au cadre là ils peuvent gagner plus que le, le président de la République ah. ce n'est pas un problème ça am na ay DG yoo xam ne est-ce que xam nga le président de euh, le, le, le directeur général de l'ARTP il gagne plus que que qui que que ah regarde pourquoi pourquoi ça. non dama ne affaire bi du affaire. sa ce que c'est logique ça. ou bien mu mën a nekk logique. Mhm. parce que un président de la république. yow sa salaire dañ la ko jox. mais en réalité dañ lay entretenir ci feneen lépp loo soxla dañ la ci dañ la koy joxal. doo jënd doo jënd doo jënd carburant. Euh, oto dañ la koy jox gratuitement. sa courant dañ la koy fayal. sa dund dañ la koy fayal président fayul courant ci salaire am fayul ndox. fayul dara fayul déplacement fayul voyage fayul dara lépp lu mu ci liggéeyam muy lekk muy invitation muy ay cérémonie yu mu war a organiser lépp dañ ko koy defal. xaalisam boobu du dara. alal mhm. mi sax soxlaw ko mais euh, xaw ma lu ñu koy waxatee euh, tout travail mérite salaire. Mhm. xëy na terme boobu moo tax ñu xalaat ni war na ko gagné ñu évaluer ko lenn rek laa waroon mën a xam. dette aussi dette de. waaw loolu leneen waaw mais dettam moo ko leb moo leb pour defar këram c'est normal. yow an sa terrain ba sax ba tey. <laughs> Ah, waaw waaw waaw bu ngi noonu waaw dégg nga moom terrain moom moom jot na ko surtout que dañ ko jox terrain gratuitement ah. moom. à Mermoz. et c'est très bien. loolu beneen dans le cadre de son travail les privilèges qu'il a eu à recevoir. voilà mais il, il, voilà c'est tout c'est bien ils l'ont mérité. Mmh. Euh, euh, même si je ne suis pas d'accord. même si je ne suis pas d'accord ils l'ont mérité parce que ñoom ñoo ko xeex Ousmane Sonko moo ñëw créer syndicat li mu njëkk def moom mooy xeex ba bépp terrain bu ñuy dagg ci Sénégal ñoom ñu am ci un certain pourcentage est-ce que du woon xaw ma 10 xaw pour cent ah, yaa ngi dégg après ñu séddoo mm-hmm. ku ku ku ñu war a jox ñu jox la ba ñoom ñëpp ñu am ay terrain ba di jaayante sax moom jaay na jaay na ministre des des finances moom Diomaye Faye terrain yaa ngi dégg mais c'est pas grave mm-hmm. yooyu bugguma ko parce que man pour man boo amee salaire bu doy war nga mën a jënd sa terrain lépp comme ñeneen ñi ñuy def jënd ko yaa ngi dégg parce que man gis naa ni un policier qui est là qui travaille dans la rue ci mbedd mi di taxaw ci circulation bi pendant vingt ans après ñu yóbbu ko quelque part ci benn brigade muy def une petite comptabilité jusqu'à sa retraite bu retraité du am kër man loolu gis naa ko gis naa l'enseignant là ki mu xam ne moo ñu jàngal di ñu jox xam-xam te fekk ku fi tekki enseignant a tax enseignants yi dañuy dund ba dee. seen moyenne salariale ça tourne autour de cent quatre mille deux cent mille euros deux cent euh, dañuy dem ba dee ñu ngi fii dëkk ay Kër Masar ñi dëkk ci kii di loué ba tey. seen doom yaa ngi jéem a taxale di leen jàppale pour ñu fay kër gi wala bu weer bi dee ñu fay courant bi. parce que terrain bi ñu jot am taxale nañ ak seen doom pour mën a gérer seen doom yi indi nañ njaboot ci kër gi kër gi njaboot na waaye loolu jàng na euh, magistrat bi jàngal na inspecteur des impôts bi pendant 30 ans. par exemple ana booy bi fi nekkoon léegi intelligence émotionnelle boobu yooyu daf lay daf lay heurter yooyu man je suis président de la République je l'enlève le magistrat il a 800 mille francs d'indemnité de judicature 800 000 francs par weer yoo xam ne lu ko neex la ci def pour pour la wala pour mun a fay ay benn benn benn 100 millions bu mu leboon pour jënd benn terrain wala pour pour tabax benn kër boo xam ne terrain bi dañ ko ko may gratuitement waaye ces injustices là mm-hmm. alors que l'enseignant il l'a pas le policier qui est là moi je trouve que man policier boo nekkee ci circulation pendant cinq ans dañ la man je suis président de la République mm-hmm. policier nga mm-hmm. yaa ngi dégg brigadier rek nga yam bu fekkee ne defloo ay concours euh, professionnel pour pour yéeg boo defee cinq ans laa juróomi at ci euh, circulation man dama lay jox kër par force man président de la xaw ma dama koy jëlee ci kii fonds fonds commun wàññi ko wàññi fonds commun inspecteur des impôts yi xaw ma dama koy jox une partie des fonds politiques dinaa gratter fu nekk xaalis pour jox leen ko ñoom muy ñoom muy gendarme yi nekk ci tali bi wala di taxaw taxaw ci guddi gi noonu dañu gis ngi ñoo xam ne dem nañu ba 50 ans 60 ans retraite amuñu kër mhm. parce que dama ko gis ak sama bët donc yooyu yooyu je l'arrange je règle ce problème là. kii am 800000 francs d'indemnité éducative je baisse ça je lui mets la moitié francs 400000 yooyu laay dem dajale ba mu bari ma dem jox alkaati ak gendarme yi. parce que ñoom ñooy taxaw ci mbedd ma leen gis ak poussière bi dugg seen bakken yi ñu taxaw foofu furi seen seen tenue yu furi c'est pas normal. moi je suis président de la République j'enlève ça. dañuy dañuy damay lijjanti loolu te yooyu war a xoolaat parce que y beaucoup de gens mhm. haute administration bi dañu bari ay avantages moi je suis d'accord avec ces avantages là tant que le pays avance et continue à se développer mais pays bi bu fekkee ne dafa appauvrir mhm. le pays est pauvre dañ loolu dañ ko war a lijjanti euh, donc Diomaye li ëpp conclure rek au Sénégal ou c'est bien mais on attend un petit peu la suite et les autres aussi ils ont qu'à le faire ñi nga xam ne ay premier ministre la ñu je pense à Ousmane Sonko je pense au ministre de la République yaa ngi di détenir ay structures yoo xam ne y' a plus d' un milliard de valeur DG yi yooyu noonu waa port waaye ay yoonu yenn DG yi ñoom ñëpp nañu xam nañu xam d' abord ñaata la ñuy gagné et puis nañu def seen déclaration de patrimoine nañu xam ñaata la ñuy fay impôt à l' année Bassirou Diomaye Faye je voudrais savoir ñaata ngay fay impôt l' année prochaine normalement bon je ne sais pas mais en français au mois de décembre ah. bi def na loolu mën nañu attendre si ñoom. non non man de chose aussi. waaw mën nañu attendre moi j'attends rien tout je veux voir. dama ne rek loolu nañ si bàyyi xel. déposer ñoom tamit seen déclaration de patrimoine et puis bu ñu yem foofu chaque année war nañu xam ñaata la ñu fay ci impôt parce que am na ay impôts yu ñuy fay quand on a de l'argent on paye des impôts. surtout quand on est dans la fonction publique nga xam ne on a une ci wàllum salaire salaire. d'accord. donc il faut ñu régler problème boobu parce que am na xaalis yu bari yoo xam ne fii ci Sénégal man de mun naa ko génne. mën naa ko génne ah fii nii nii di tabax immeuble yëpp mën naa fa récupérer xaalis moo tax Ousmane Sonko quand il disait que y a beaucoup de choses yoo xam ne xaalis boo xam ne ay niis mën nañu ko récupérer ci xaalis bi mm-hmm. quand il le disait il était aux impôts domaine j'étais d'accord avec lui parce que xam naa li mu bëgg a wax parce que ñu bari du ñu fay impôt fii ñu mënoo ay immeuble moi je récupère cet argent là je donne ça aux tout ñi nga xam ne amuñu paas pour dem jàngi wala dañu leen di arrêté jàngal parce que tout simplement euh, yaay ji amatul paas bu mu ko jox pour mu dem jàngi xale bi toog ci kër gi ñu ne ko demal wuti métier alors que cet enfant aurait pu être un ingénieur en quelque chose mhm. ñu yàq addunaam parce que ses parents sont pauvres euh, alors moi président de la République je dis non euh, je règle problème très rapidement parce que ñoom ñëpp carburant yeeg yëpp laay ay 5000 5000 litres de carburant yooyu doot fi amati ay 4 4 à 80 millions je baisse ça. bés boo leen ko bëggee bés bu dëkk bi ma delloo leen 4 4 yooyu mais tant que le pays est pauvre on partage. Mm-hmm. ce que nous avons xaalis kenn du ko witti ci garab. dafa am foo koy jëlee. wax beneen donc comme ñun dañoo gëm yàlla nag ay solidaire lañu nee nañu dañoo dañoo dañuy dimbalante di def ay asaka yu kenn xamul nañ ko def fii nii nii d'abord ci Zahir après bu ñu deewee yàlla yóbbu ñu àjjana. temps bi xoj nañu Aliou parce que li ñu wax ci déclaration de patrimoine bi dafa bari. waaw recomposition de la classe politique sénégalaise qu'en est-il mi question bi nga soulevé mais ñu bàyyi ba demee ñu développé ko moomat beneen bi diffamation au Sénégal. comme vous voulez mais c'est très rapide hein, aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe. Mais... oui temps bi la de la classe. bon on y va très je me pose beaucoup de questions. Mhm. par rapport à certaines réactions parce que euh, journaliste bëgg ci xarañ lool. Mhm. Euh, euh, di gëstu di jéem a di réfléchir pour avoir des idées mhm. précises et puis mën ko sànni sénégalais yi ndax mu doon gënal effectivement quand j'ai vu. Walf def ces jeux d'alliance là ça m'a un petit peu euh, donné euh, envie de poser certaines questions par rapport à la recomposition euh, mm-hmm. politique au Sénégal après l'élection de Bassirou Diomaye Faye il se trouve que il y a mm-hmm. certains leaders kenn xamul Idrissa Seck kenn normal parce qu'il aille la retraite parce que ça fait 30 ans 40 ans qu'il est là il faut qu'il parte et que les autres viennent Khalifa Sall ñu ngi koy xaw a nañ ko am na yoo xam yi xamuñu ko ñun ñu am luñ ci xam tuuti et cetera donc je me pose des questions qu'est-ce qu'il va faire euh, par rapport à son avenir par rapport à taxawu Ndakaaru est-ce que day dem ci Diomaye wala déet il me semble que ni il se serait euh, passé quelques échanges téléphoniques entre Khalifa Sall ak Bassirou Diomaye Faye bi mu génnee kër Abdou Diouf ah dëggal wala du dëgg ah, ah bah lan nga kii bon évidemment après il y a eu une réunion qui a été faite euh, au niveau de Taxawu euh, euh, pour ñu xam bon apparemment les gars de Taxawu maintiennent leur position en étant dans l'opposition pour faire une petite rime voilà donc ñis des Bougane assume ses responsabilités Amadou Ba on ne sait pas ce qu'il va euh, pouvoir faire à l'avenir gis nañu mi nee na dina wax plus tard parce que il n'est pas prêt pour parler et on verra bien ce qu'il fera Amadou Ba euh, moom moo xam en tout cas euh, moom moo am nekk deuxième aux élections présidentielles mi ngi dugg ci di gis euh, les marabouts kilifa diine yi ak yi demee noonu maintenant qu'est-ce qu'il pourrait faire il va peut-être se retrouver au Fouta il va essayer de revenir et de reconquérir parce que bon voilà il est obligé jàkkaarloog ay booyam ñi nga xam ne moo leen doon jàngal de l'avenir dans ce pays on ne sait pas Mamadou Lamine Diallo qui est un qui est, qui est, un homme extrêmement bon am xam-xam spécialisé dans l'économie nit ku mën yaa ngi ne koo xam ne fii tubaab Jacques Attali nekk génnee la génnee am expérience aussi am fu bari fu mu jaar en tant que consultant mais euh, il n'a pas de bol il n'a pas de bol pas de chance je voulais dire parce que tout simplement après euh, euh, eh yàlla gars yi kii wuñu ko xaw ma il faut qu'il peut ma doon président wu Diomaye Faye dama koy jël tekk sama parce que waa ji am na xam-xam xëy na politique bi gars yi kiiwuñu ko euh, tourné wuñu bopp ci moom c'est comme ça c'est la vie am na ñoo xam ne dañuy am xam-xam mais gars yi duñ duñu duñu kii si ñoom mais waruñu bàyyi tête yu mel noonu ñu ñu ñuy rëcc ba retraite ba nasaxal seen xel yi li ñu xamoon ci xam-xam yëpp duñ ko mën a utiliser donc ce serait un conseil qu'il le prenne et qu'il le mette à ses côtés en tant que conseiller bu fekkee ne nangu na ko pour mu mën a jëriñ Sénégal sinon ce serait dommage mm-hmm. eh ben euh, qui les Sénégalais n'en profitent pas maintenant Ousmane Sonko qu'est-ce qu'il va faire lui en tant que premier ministre qui a de l'avenir, qui est patron du PASTEF, euh, euh, il est Premier ministre, mais en même temps, il est président de parti politique. Qu'est-ce qu'il va faire, mon, euh, Ousmane Sonko? Je crois qu'il va tenter d'être peut-être que dina dina dina dina def parce que il faut qu'il maintienne le rythme pour que mu mën a am le contrôle et puis éventuellement peut-être imposer à Diomaye un autre ministre un autre premier ministre qui lui serait favorable à lui Sonko D'accord. Voilà, lui, donc euh, ouais, ouais, qui serait favorable à lui imposer à Diomaye un premier ministre et moom élection président élection législative mu dem jiite liste bi en espérant avoir une majorité à l'Assemblée nationale comme ça il va contrôler l'Assemblée nationale et contrôler Diomaye au travers d'un premier ministre qu'il lui aura proposé. Mais en ce moment-là foofu lay xaar est-ce que Diomaye dina céder mhm. wala cédé mais normalement war na comme Diomaye mooy Sonko mhm. te Sonko mooy Diomaye xam naa bu boobaa. bu ko joxee mais na ci ay postes yi. au niveau de poste. waaw mooy Sonko. un simple mooy Sonko quoi. te comme Diomaye mooy Sonko bu ko na un premier ministre joxoo ko eh bien moom mu dem assemblée nationale l' l' euh, euh, la primature. parce que daf koy tegal ne ko jëlal ma kii mu nekk premier ministre boobaa est ce que Diomaye dina ko nangu wala déet. parce que am na yoo xam ne Ousmane Sonko buggul ñu nekk premier ministre. parce que ah. du leen mën a contrôler donc dina fa mën a teg koo xam ne xëy na mhm. moom dina ko mën a contrôler euh, en même temps via muy contre continuer di contrôler waale euh, Bassirou Diomaye Faye mais il me semble que ni xëy na am na tuuti fulla et que xëy na à un moment donné dinañ déggoo ci kàddu ba def les trucs les choses de manière équilibrée pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais merci merci à vous Aliou Sow inchallah on se donne rendez-vous demain j'espère que j'ai bien travaillé ñoom question bi du pour <laughs> diront sûrement qu'elle voilà. <laughs> voilà. Mais la question, c'est pas pour ceux qui ne, pour, pour, ceux qui me, qui me détestent. Hein. D'accord. Question, pour ñi ma ñi ma kii pas pas ñi ma bëgg aussi mais ñi nga xam ne dañu équilibré ñooñu laay laaj ndax liggéey naa wala déet. parce que <laughs> euh, comme ça ma gën a góorgóorlu léegi ak Marème. <laughs> waaw ñu dem ci mode ak tendance ak